règlement intérieur bu tere ab député mu commerce mbaamu am ab société xawma ko te maa ngi ci quatrième législature mais li ma d'accordul mooy marché ay milliards yoo xam ne ñeneen mën nañ koo def nga jël benn Moustapha Cissé Lo nekkul ca corporation boobu amu ca oto camion 30 tonnes 40 tonnes gros porteur ñooy sëf ceeb ak i denrée nga fab marché boobu jox ko ko mu war caa am ay centaine de million te da koy jox presque xaalis liquide ma ni loolu rafetlu wu ma ko député bu ñu ko bëgg a jox war nga ne déet nañ seet ñeneen ñi ci bokk ci secteur bi di ay transporteur te ami camion ñu bokk ci waaye nga jox ko ko moom mu dem luye ji camions yi transporteur yooyu dagg seen xaalis ñu jox la prix bu baax yow nga luye sax camion jàmbur pour un mois def ci cinq rotation wala six rotation loolu bokkul ci transparence ñu bëgg nag loolu ministère bi leeral ko bu loolu paree ceeb bi nga xam ne bii moom ci boppam jënd nañ ko muy cent mille tonnes ñu wax ñaata commerçant ñoo ko jënd nuñ leen joxe marché bi ba ñoom ñu jënd ko te liñ ko jëndee man buñ ma joxoon xaalis bi lu ko gën a ndaw danaa leen ko jaayee ceeb